njàmbur ñu lay cuq da ngay toog jàpp sa njàmbur ñu lay cuq di la di la di la di la tànn asalaamaaleykum ahlu kaa xam naa ni namoon ngeen ma du ma maye 24 heures ci ay big you know king Fallou wala laajoon ku li influenceur dañ naan leen Fallou baal leen li nag mooy tontu wéeré di laaj leen ko commentaire yi plateforme yooyu bii di YouTube beneen bii di TikTok bu leen neexee ngeen dem Instagram waa lu tax man sax booba léegi tontu ma leen man ma nekk di réglé kaaw lu ngaata ah. man sax waruñu classante ndax bokkuñu classe waa teema woobul si influenceur ñu génnee trophée daaw bi te ma jéem a yeggali kaawu ak lu ngaata ndax affaire boobu noonu day def effet ku classul da ruux game bi dafa fayoon game bi fa yaatee match bi fa lay taase affaire yooyu day def effet sama affaire seytaane yooyu day def effet xoolal ni ngeen koy rabe gàkka kalaas tey axlu kalaas suuba affaire yooyu day def effet sama affaire seytaane yooyu day def effet xoolal ni ngeen koy rabe axlu kalaas tey daaka kalaas suuba <laughs> mais gém bi neex na waay <laughs> dama naa ne bu ngeen may yëngal bu ngeen may yëngal biril naa ngeen na soo axlu bul bàyyi ngaa bul bàyyi na neex